ñoo ko organisé woon ci réew mii di Sénégal si li ni mel kii di Mame biram wàcc ne journée sans presse bu ñu mujjee organisé ci réew mii di Sénégal moom en tant que journaliste gisu ci boppam ndax ne en réalité journée boobee patron de presse yi ñoom ñoo ko oote ngir daal di défendre seeni intérêt waaye ne ñooñee défendre duñu woon na intérêt wu presse bi yépp ne dernier combat bi nga xam ne ne presse bi daal dina koy mëne te si li mel aku patron de presse daal di koy initier ci réew mii di Sénégal ne loole kiñ dippee Sidi Lamine Niass mu moom woon Walfadjri moom moo ko initier woon ci réewu Sénégal en 2016 te ne li ni mel kookee ba mu koy amal daa gisoon que ne presse ci réewu Sénégal asseniruñ ko maanaam amul woon liñ dippee code de la presse ne li ni mel moom moo sababoon kookee oote woon akub manifestation te ne ginnaaw ba xeex boobee antoo bañ amal code de la presse ci réew mi di Sénégal ne foofee la aide de la presse dal di bàyyeekoo donc ne combat boobee ki ñu dippee Sidi Lamine Niass initié woon en 2016 ci réew mi di Sénégal mën nañoo wax que ne combat boobee combat wu presse bi yëpp la ndax ne foofee la code de la presse bàyyeekoo te ne si tamit la ed de la presse bàyyeekoo donc ne lu war nekk combat wu bi ci waxtu bi ñu wane si réew mi di Sénégal moom mooy ñu daal di fexe ba ñoŋal code de la presse boobee ndax ne code de la presse ci réew mii di Sénégal bëri na ay manquement ndax ne akub préfet sax bu ko neexee mu dem daal di tëj akub rajo te ne li ni mel du dëgg du yoona te loolee ci code de la presse bi da cee am ci réew mii di Sénégal donc ne xeex boobee moom moo war a nekk xeexu presse bi yëpp bañ fexee gën a am seen liberté ci réew mii di Sénégal ginnaaw li ni mel ki ñu dippee Ayoba di journaliste tamit ci biir Walfadjri ginnaaw ba ministre bi dippee Alioune Sall génnee daal di xamal sénégalais yi que ne régime kookee di président Macky Sall et de la presse bi ñu ko doon séddale amuloon woon tëddee njaaxaanaay ndax ñooñee dañ doon jël xaalis bu takkoo takku daal di koy jébbal groupe de presse yi nga xam ne ne dañu leen doon taggal seeni maam ba noppi daal di jël xaalis bu néew a néew daal di koy jébbal groupe de presse yi nga xam ne ne ñoo ñooñee dañu doon amal ay critiques yu objectif te ginnaaw loole ki ñu dippee mënoon Ndour Faye di njiital télé bi ñu dippee Sénégal 7 génn daal demantir démentir li ni kookee di Ayoba yëkkati na ay kàddu daal di àddu jëmale ko ci li kii di Ayoba ne kiñ ñu dippee mënoon Ndour Faye ci génnam bu mu génn ne day démentir ministre Aliou Sall ne kookee au contraire daa gën a confirmer daal di gën a dëggal lu ministre Bobé daal di wax ndax ne kookee di Maimouna Ndour fay né mom 35 millions la jotone comme aide à la presse bu bàyyee ko woon ci gouvernement bi té né ci waxtu bobé groupe Walfadjri bi nga xamné né dafa am télé am radio, am journal Bobé, 20 millions rek la daal di jot te ne kookee di Maimouna Ndour fay mom télé rek la daal di am donc né bu Maimouna Ndour amé akup télévision rek groupe Walfadjri daal di am télévision rajo ak journal te daal di jot xaalis bu gën a néew ku kookee di Maimouna Ndour Faye ne li ni mel tey gën a dëggal kàddu yu ministre Aliou Sall yëkkati ndax ne gouvernement wu kookee di président Macky Sall buñ jébbalee kookee di Maimouna Ndour Faye 35 millions te kookee am akub télévision rek ne li ni mel day tekk ne kookee dafa favorable woon na ak gouvernement bu fi nekkoon waaye Walfajiri mi nga xam ne ne am na télévision am rajo ak akum journal kookee daal di jot 20 millions rek li ni mel day prouver ne kookee di Walfajiri dafa tëddee woon njaaxaanaay di doon amal ay critiques yu objectif jëmale ko ci gouvernement bu fi génn te loolee moom moo sabab mu daal di jot xaalis bu néew. ginnaaw li ni mel ki ñu dippee maître Babacar Cissé yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale si ndax kookee di président Bassirou Diomaye Faye day des waaw wala ci conseil supérieur de la magistrature kookee di maître Babacar Cissé ne bu amoon pour conseiller kookee di président Bassirou Diomaye Faye da koy wax mu daal di des ci conseil supérieur de la magistrature ci réew mii di Sénégal ndax ne réewu Sénégal donte réewu démocratie la waaye démocratie am jotagul fi nga xam ne ne président de la république mun naa retiré wu ci conseil supérieur de la magistrature ndax ne kookee di président Bassirou Diomaye Faye bu fekkee ne retiré wu na ci conseil supérieur de la magistrature risque bi moom mooy que ne bu fekkee ne daa am ay lobbying yu daal di dugg ci biir juridiction bi maanaam bu fekkee ne daa am ay groupe bu nit yu am xaalis yu ngemb ay juge yu nekk ci biir conseil supérieur de la magistrature nekkoon ci li ni mel kookee di président Bassirou Diomaye Faye dootul mënati gouverner réewu Sénégal comme il faut ndax ne juge yooyee dinañ ko mën a daal di tëggal ay ndëgg sërëx yi nga xam ne ne kookee président président Bassirou Diomaye Faye du ci mën a daal di génn kon dootut mënati gouverner comme il faut réewu Sénégal ndax ne en réalité fu ñu toll ci démocratie ci réew mi di Sénégal moom mooy que ne pouvoir judiciaire amagu fi waaye ne ay autorités judiciaires lañ daal di am ndax ne boo demee ci réewu Amérique foofee procureur de la République dañ koy fal au suffrage universel donc ne pour akub juge daal di am pouvoir ne kookee faw ñu daal di koy fal aussi suffrage universel waaye ne tant que akub juge dañ koy nommé ne kon kookee du lenn lu dul akub autorité te ne foofee la réewu Sénégal yem ci démocratie donc kookee di président Bassirou Diomaye Faye warta xalaatu bàyyeekoo ci conseil supérieur de la magistrature ci réew mii di Sénégal ginnaaw li ni mel kii di maître Moussa Diop ne journal bi ñu dippee La tirbine te kii di Bougane Gueye Dany daal di koy jiitee ak journal bi ñu dippee le quotidien te kii di Madiambal Diagne daal di koy jiitee ak journal bi ñu dippee observateur te kookee di Youssou Ndour daal di koy jiitee ne journal yooyee lépp luñ bind ci réew mii di Sénégal benn sénégalais waru koo gëm ndax ne ñooñee duñ vérifier information yu ñuy daal di fësal te ne li ni mel daa dund ak ñoom expérience bu mel noonee moom moo sabab mu daal di yëkkati kàddu yi ni mel. mais kàddu yu mu lu koy firndeel moom mooy que ne ñetti journal yooyee ñoom ñoo fësaloon que ne dañ ko épinglé ci rapport OFNAC ginnaaw ba muy jiite société bi ñu dippee Dakar Dem Dikk ginnaaw ba mu jëndee woon foofee benn oto buy jar 84 millions ne si li ni mel nag daa porté woon plainte ñetti journal yooyee yëpp waaye ne ñetti journal yooyee yëpp ginnaaw ba mu leen porté plainte ñoom ñëpp ñoom ñoo daal di jébbalu daal di jéggalu de manière publique ndax ne ñoom ñëpp ñoom ñoo fësalaat si seeni xët ka ne kàddu yooyee ñu jubaloon jëmale ko ci jëmmam kàddu yooyee du ay kàddu yu wër te ne li mel moom moo sabab mu retiré plainte boobee mu yëkkati woon na daal di koy jëmale ci ñett journal yooyee nee nag ñett journal yooyee ginnaaw ba ñuy fësal li ni mel jëluñu woon temps sax daal di dem liir lu rapport OFNAC bi bindoon jëmale ko ci moom waaye ne ñooñee dañoo déggoon ne tëll rek ñu ne daal di wax ko ne damm na daal di bind lu ñaaw jëmale ko ci jëmmam donc journal bi ñu dippee observateur ak journal bi ñu dippee le quotidien ak journal bi ñu dippee la na benn sénégalais waratu leen a gëm ndax ne ñooñee duñ vérifier sax information yi nga xam ne ne moom la ñuy la daal di koy jébbal sénégalais yi. lii lañ leen indiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah.